lay di ci dañu mu yëgal ma yëgalu ma xamu ne taw woon candidat mais man fii laa dégg fii man fii laa amee information man fii laa gëstoo kër ñu ne ma moom Bécaye Mbaye boo sàggane lam yi ci loxoom la jëm waaw dax lay wax Bécaye Mbaye lu baax lay loolu lay toute façon waaw mais reporter Moustapha Gueye waaw reporter Manga 2 waaw mais li dara la jamono ji war na mën a déposer waaye man ñàkk ñàkk a yëgal bu ma ko ñàkk a yëgal waaw mais père nee ko man nag père Tafa mais man dañu lay di tig mais dernière information père eh, ginnaaw buñ la nuyoo information biñ mujj a am ñun fii dégg naa mbir mi boo sàgganee sa loxo lay mujje dégg naa loolu de non loolu yëpp yàlla moo xam mais de toute façon candidat la déposé naa ko waaw je suis le candidat des traditionnels yi nekk ci làmb ji hmm? waaw mu di reporter yi mu di tëggkat yi waaw di woykat yi waaw di yenn ci microcentral microcentral waaw man maay seen candidat benn waaw damay sant yàlla nag. parce que li tax ñuy sant yàlla fii bi ñu duggee ci biir. Mhm. vraiment y la la ñu ñëpp bokk ndey ñoo bokk doo xam da nga naan sax mais pourquoi dajaloo wuñu ñun ci suñu bopp avant ñuy ñëw. teel a waxtaan. waxtaan. ni diw la ñu mhm. loolu bu ñu ko defoon kon heure bii du duñ fi nekk sax di wax. boobu boobaa ministre bi lan ko waroon a jox rek ni ko ñun diw la ñu fal. mooy yàlla dogal na nag fi dugg yóbbu nga sa liste. li mhm. nga yaakaar ni moom moo mën a doxal Mm-hmm. làmb ñun dañoo am expérience bi ñu ngi ci depuis quatre-vingt-dix-sept mm-hmm. en tant que reporter mm-hmm. dafa am loonu ci def yóbbu nañ ko fu ne partout dans le monde mu di Europe mu di ci biir Afrique mu di aux États-Unis fu ne yóbbu nañ ko fa làmb li ci évoluer bariwul boo dee xool li ci ëpp c'est les promoteurs ñoo yor finance ñoy fay CNG ñoy fay mbeur ñoy fay manager ñoy fay police ñoy fay ñëpp. Mhm. kon ben entité dong mo yoré làmb. ñëpp arbitre yeeg tout ki leen di fay c'est le promoteur. il faut lool ñu jëm xol naka lay deñee làmb Dakar la yem bo dé xol par exemple nga duggal ci fatik wala nga duggal ci Diourbel ben quelques régions ak Thiès ñoo fi teug lamb ak ah, Mbour yoy ñoy teug lamb mais lamb dafa waroon chaque mois mhm. CNG Télé làmb fii ko dans une région. Mhm. journée bi journée région Thiès la journée bi journée région Nangam la lolou CNG moo waxuma lako mu def ko sax ci lutte avec frappe. Mhm. mais mu def ko surtout ci lutte traditionnelle. ci lutte simple Ben benen bi les mbër les lutteurs là ne sont pas assurés. booy mhm. gis yéen budul ben benn ñaar ngeen gis ay mbër yo xamni ne bëri nañu ba jeexal. dañuy ñaanaat. dëgg la bëri nañu ba jeexal amuñu ben assurance. am ku ci feebar amoo lay faj. buñ la buñ la buñ la buñu tarbiyewul doo doo doo doo doo faju mm-hmm. dafa bari yoo xam ne dañ ko fay war a jëlee mm-hmm. yoo xamante ci biir làmb la ne lu jëm ci mbër bari na mbër yoo xamante ni dañuy egg l'âge à la retraite du ñu bàyyi mm-hmm. lu bay jëm ci manager y a des managers yoo xam ne dañu yore ay deux cent ay trois cent mbër da ngay dem ba yor ñaar ñoo xam ne ay adversaire lañu ci làmb loolu daf fi war a deñ li war a denc ci làmb dafa bari communication bi nga xamante ne ni yéen ñii moom ngeen yore bokk ngeen ci ñu évoluer làmb yéen ñii bu leen xeeb lii ngeen di def mais à part loolu man daal wax naa li nga xam ne moo di sama xalaat wax naa fi mu bëgg a dem. kon bu ma ñëwee ni ma bëgg a innover changer làmb pour nag ñeneen ñi am nañ candidat lu tax waxuma ko non jaru ko. problème bi du affaire foofu loolu mooy affaire campagne électorale man nekkuma ci campagne man idée laa yor xam-xam xalaat boo xamee ne dama koy joxe mhm. joxe naa sama xalaat bu dee xalaat doy na leen xayrun bu dee doyu leen keneen ku nu falit dinaa ànd ak yow jàppale que cela soit clair keneen ku nu fal dinaa ànd ak yow jàppale la. mais yow dégg naa ministre daf la woo Père Bécaye. non non man kenn. ah dégg naa dégg naa loolu. non non non non gars yi na bu nu bu nu waxal ministre lu mu deful man gisuma ministre. dégg ministre bi maa ngi ko gëj a gis keroog bi ñu fi toogee fii ci réunion bi ci waxtaan bi keroog laa gëj a gis ministre bi mais de toute façon daal ministre bi nañu ko gërëm mm. mais encore am na beneen affaire bu am mënoon na xëy tànn waaw waaw bu wax nga dëgg de mënoon na xëy tànn ñi fi jaar ñëpp danoo xëy tànn waaw lan fat déggoo ci coow coow amul dañoo dem mais bi ñu waxee nii rek la ay lobby jóg ay ay campagne jóg dina day campagne électorale gars yi mel ni ñu nekk ci campagne électorale ay ah loolu non non loolu mooy indi amul animosité ci diggante nit ak nit susu loolu ah diw hmm. la normal diw di ci xeex di ci xuloo hmm. loolu du yoon ah, ah, loolu non non non non non non nan nu tegal programme bu hmm. baax ñoom ñëpp nan nu wax programme bi nii la demee lii la nu bëgg lii la nu bëgg waaye ñëw rek diw la diw la diw la yooyu tamit mais mais père lii bu continuer nii est-ce que mel ni luy yàq du ëpp lu muy def waaw loolu xalaat nañ ko mais boo ko xalaatee tamit boo duggee ci biir salle bi mais dañ doon waxtaan mel ni kenn farulu kenn hmm. sincère ba hmm. lu nu neex lan doon waxante xasante xulo xeex jàppante ay entre ay xarit daal hmm. mu jeex mais pare ku nekk ñu woo la ci kaw nga sa liste nga xam non du vote ah. du fot nu mu demee kon encore bu leen ku leen fi wax ni ay vote la waaw nu mu demee non du vote nu mu demee kon da ngay dem dak nga joxe sa xalaat nga ni ñun kat diw ak diw ak yaakaar teg sa liste jóg dem sa yoon boo amee loo fay wax nga wax ko fa. Mhm. argumenté nga argumenté. yow lu tax non non la laaj ci candidat yi. Mhm. yow yaay ñëw yaay argumenté daal bu dee am nga loo wax ah, waaye am na ñoo xam ne dañu ñëw rek teg ni waa diw la. dem seen yoon ah. non man xaw ma naa man sans bopp laa xam. yow sa kan mais yow da nga am programme parce que sax mu la déggee nga déglu li nga waxee sànq. man xam da nga am benn la di wax naa leen 97 ba léegi maa ngi ci lamb ji. man reporté naa. man reporté naa combat yu fii 97 tey jii fu làmb ci toll ci laa. classe bi bu ñu koy wax c'est moi. et Gaston Mbengue. wax ci Luc Nicolas c'est man dama am ay argument yu balaa yu war a mën a tax. ma war a yore CNG bi te bu ma ko yoree jeunesse bi dinañu kontaan te dinañ xam ni kii mën naa yor se dégg naa quatre candidats moo am ci biir. man xamuma keneen. mu leen ma dugal. xam naa ne daal. xam na Malick Ngom attends attends le président sortant candidat la. Bira Sène waaw Malick candidat la. waaw ak yow ak man. keneen ki kan la. non keneen xaw ma ko. Mbaye Fall. non Lady Tigre yëgu ma dégg na ah ah ko wax de. candidat la Mbaye Fall Lady Tigre voilà ñooñu ñëpp mi ngi noonu daal kon ku ne mën na nekk et puis tamit xam nga kenn xoolul enveloppe bu kenn ah. Mm. c'est du sérieux dem xoolul enveloppe bu kenn mais li nga waxoon ne maanaam yow doo jiite CNC ci bénévolat ba tey yaa ngi ci loolu waaw loolu ba tey bii maa ngi ci maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant kenn ku nekk xam na aussi tamit sa diggante ak mbër yi depuis quatre-vingt nangam ba tey quatre-vingt-dix-sept dañu gis yeneen mbër ñëw taxaw ànd ak li nga nekkoon silence loolu bokk na ci. loolu bokk na ci mais man du ma woon daal pour nekk waaw mën naa mën naa am. erreur ni nga yéex a fee. mën naa am parce que tey la ñëpp xam nga man bi nu defee sondage bi ci net bi dañu ni Bécaye moo jël paie ah. loolu ñëpp gis nañ ko.

bu njëkkoon dan daan dem jeux dan fa daan am dara dan daan dem ci yeneen ci yi dan fa daan am dara lu dul affaire u CEDEAO mënatunoo am dara hmm. te CEDEAO dan koo gañee gañee gañee ba sonn waaw loolu de am léegi nanu jéem a wutaat defaat yeneen jéego moderniser lamb hmm. écurie yi ñu fexe ba xale bu bëriwul hmm. liggéey écurie yi loolu la eh, wuyu pël pël nga ni mu ne pël nga yi muy posé xam ne wax nañ ko ba pare gis ne amna na yu dag licence da dañuy gaañu ci lamb mais zéro lay mujj gis nañ mbër yu renouveler licence dañuy am jafé jafé ci lamb ba dañuy mujj monde de la lettre bi ñoo jox kettal leen. di leen cotiser bu la falan am nga argument. dootul mbeur dootul bëri ci te amul assurance ben. mbeur bo bëggee doon mbeur da ngay dem nga assurer ji. lolu mo yoon ko gaño nga mën a non assurance bobu du assurance. assurance deug moy bo gaño mhm. faju lool loo bu la dara dalee ñu faj la assurance faj la mais et puis danoo demul fu sérieux buñ demoon ci ñu sérieux dina ñun bu boobaa man CNG dinañ ko gérer ba mbër bu nekk balaa ngaa bëri dinañ la teg ci yoon bi nga xamante ne nii di nga mën a am assurance boo gaañoo ñu faj xam nga père man dama lay topp déggaat naa fi sànq léegi benn information kat yi père Bécaye ko joxee CNG maanaam wàllum sponsor boom ci côté CNG day am léegi léegi dégg naa loolu tamit ci sa ay ah, euh, connaissance ak sa liggéey sponsor bi xam nga loo koy doyee waaw yóbbu ndar làmb waa ndar mm-hmm. indi indi indi animation mm-hmm. indi lu nu attiré nit ñi ci biir sport sans violence kenn du fay boo demee Tamba a nga fay def sponsor mooy wër ak yow partout xam nga man waruma leen wax sama programme <laughs> ah oui <laughs> il faut ma wax leen mais père ñun sponsor mooy wër ak yow partout dans le Sénégal fu nu dem ñu yëkkati culture Sénégal du doon bëre kese du doon bëre kese dañ ciy dugal leneen ak leneen loo xam ne culture la ndaxte dañ ni ministre de la jeunesse du sport la culture waaw sport jeunesse waaw donc lépp loolu ministère bi dajale lañuy jël yóbbu ko partout dans le Sénégal. partout dans le Sénégal mais am na ay mbër yu bëre ba bàyyi bëre comme ni nga ko waxee léegi ba ba tey sax am na ñu mu dal à l'image de Zallo mën naa ko jël défendre Sénégal fu nekk ci àddina bi am na ci ñoo xam ba tey ñu ngi bëre muy équipe nationale des fois ñoom dañuy dem compétition ba ñëw ñu leen jox ay cinquante mille ak ay weccet yoo xam ne ah, oto sax duñ ko am bu leen yóbbu maanaam ñibbi seen i kër. waaw loolu loolu day deñ loolu moom ce qui est clair mooy day deñ parce que man. ci sport laa judd daanaka sama ndaw yëpp sport man naa ngi dëkk ci booru stade mhm. man xammee naa footballeur yi football yi yëpp xammee naa loraange di leen sport teg mhm. xam naa ni nu sonne mhm. loolu man bu ma yoroon làmb loolu bu soobee yàlla dëkk jóge dootu fay am loolu daal laa leen mën a wax et vraiment di leen encourager di leen gërëm di ñaan yàlla lamb na changé bi laa loo koy wax moom luma koy wax di ko encouragé bu dee moom la nu ñu jàppale ko ah. bu ñu falé Malick ñu jàppale ko keneen ku ñu fal ñu jàppale parce que ñun làmba nu juk xamé hmm. wu xàmmeewuma woon hmm. Luc Nicolas ak Gaston ak ah, papa Abdou Fall hmm. ak ñom ñep Aziz Ndiaye ñooñu ñep man ma leen teyé fi yóbbu leen ci média ba làmb tollu fi mu tollu yeen ñep bu leen lamb neexee c'est moi ah. lu tax nga fair play <laughs> ah dama ko nekk jëwal baax. <laughs> non bi laay laaj. surtout ñi génn na pour la Moodu loola wax ak. secta shooting ba génn na. waaw loolu nag booy loolu penc ma laaj. <laughs> penc man dara ñoom ñaar daal ay mbër la Moodu loo suivre naa ko depuis bi am 16 ans 18 ans di dugg ci làmb xam naa c'est la même chose combat la ñu ngi ñaanal waa jàmbaar ñu réussir mais li ci des vendredi ngeen. mais mais mais mais drapeau père ba yéen a bokk Grand Dakar. Balla euh, man ah man loolu laa xam ne. man bu problème ma wax. Mhm. mbër feebaree ma jóg ci. Mhm. mbër nekkee ci ma jóg ci. Mhm. bu ma gisee Balla Gaye ak ñu juboo seen affaire la. waaw ñoom bu ñu xulóowee seen affaire la. ñu xam nga ñaar ñoo xam ne par la force da ngeen a war a. waaw pour leen a xulóo. déedéet bi may dégg ñu ne wey Siteu ak Balla Gaye mu ne ma lii lu seen yoon. yoonu kenn ku Sa Thiès ak Balla Gaye Sa Thiès Balla Gaye. waaw mu ne mais ñoom lu seen yoon. wax dëgg yàlla. si Balla Gaye ak Siteu ak ak euh, Sa Thiès bu ñu jotee. mooy Sa Thiès Balla Gaye Lac de Guiers. waaw Double Less benn la leen defoon. waaw ak Ama Balde kay. ak Ama Balde. waaw benn doom la leen defoon. kon bu ñu xoolee fii di dox dox la ba jub xuloo fi seen affaire la. ñoom xam nañu man xam naa. seen baay la. voilà ak lan. et eh, booy merci